فل نور هل النور نور ينورنا Galas Mbàkke mama buso ko jur mooy Jaaratullaay noorum mbokku jullit yeeg mbokku taalibe gannaaw bu ñu leen nuyoo di leen jaajëfal waa kër Serigne Fall ñoo leen di xamal seen entreprise bu mag bii di yëngu ci lépp luy wàllu carrelage équipe bu dynamique am lool yar ak teggin ci li ñuy def am ci nag seen certificat de travail depuis ba ñu jàngee seen métier mi ñëw fii ci réew mi di doomu réew mi nekk ak réew mi ak waa kër Serigne Fallou Dieng et frère jaaxle jeex na takk yow mi bëgg ñu tegal la posterelu 60 60 wala posterelu 40 40 ma posterelu 25 40 wala 25 60 pat vert sax dañ koy teg yow mi booy bëgg a décorer am sa décoration yu garaaw yi ngay gis ci réewu Mohamed cinq nee naa la décoration yu amul fenn waa kër Serigne Fallou Dieng et frère taxaw nañ temb di leen jàppale ci seen ay bâtiment waaw yii xeeti karo yu mucc ay taaru lool fii rek la waa kër Serigne Fallou Dieng et frère mën lool li ñuy def xam ko it lool yow mi bëgg tabax sa jàkk wala sa jumaa mbaa nga tabax sa kër mu mucc ayib lool sa jaaxle jeex na tàkk décoration yi ngay gis Europe mbaa nga koy gis Asie mu taaru lool waa kër Serigne Fallou dikk nañ nekk si biir réew mi di ko defar ànd ci nag ak équipe bu dynamique ci li ñuy def xam lool li ñuy def jàng ko it lool. yéen askan wi yéen lañ fi nekkal ay ca murit laal ngeen contacter ak ñoom ci seen numéro yi 76 397 22 79 76 397 22 79 mbaa nga jël seen orange 77 600. 674 17 04 77 674 17 04 ak wa kër Serigne Fallou Dieng et frère sen jaaxle jeexna tak ñi ngi ñaanal Serigne Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wé أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم إيه. رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا بالله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ko battore galle makko yalti ko battore galle makko derti a gañam a gañam a gañam a gañam ko battore galle makko derti ko battore galle makko gerti maɗa aya aya aya a gañam aya aya holum taki aci aci aya aya est ce que tubba ma goo wallah billah adalla a gañam a gañam a gañam a gañam derti galle Jangan terasa. Jangan terasa. Eh, ayah. Jangan terasa. Eh. Acı. Yat ya lan. Acı. Yat ya.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 ولا ايه ويتولى ما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله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 أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق وله تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين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 أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده من عدات الشياطين أن يحضرون ngeen jëf internet yu seen actu 44 point com ñu ngi leen nuyu di baax ci bàyyi xel ngeen ñi bàyyi xel euh, ci site bi suñu vidéo yi nga xam ñu ngi koy dugal ak topp ngeen koy euh, ñu ngi tey nag ñoo ngi fii Yoff piste 2 euh, tey ñu seet si Cheikh Djibril Diallo yaa xam naa kenn du ko présenté ci site internet bi ak fajum cosaan bi nga xam ñu ngi koy def am solo gi am solo tey nag ñëwoon doon leeral li nga xam ne nit ñi dañ koy gis ci vidéo yi mooy moccu rab bi nga xam ne mën naa ne ñun ñëpp ñu ngi koy gis partout mais tey dañ ci am loo xam ne nii lu leer naññ naññ la muy preuve boo xam ne moom lañ indil askan wi dañ koy nuyoo rek ñu doog ko dugg si waxtaan wi Cheikh Djibril ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo lay fay sëñ Cheikh di nuyu mbokku auditeurs yeeg auditrices yi di leen ngeen dal jàmm fii ci centre médical Al Afia. Euh, ginnaaw bu ñu la nuyoo euh, mu mel ne vidéo yi nit ñi dañ ko doon gis naan est lii am na wala amul ñu gis fajum rab mi euh, coono bi ci nekk mën nañ ne tey gis nañ ñëpp gis nañ teg nañ seen bët. koo xam ne darah. matut dara mais tey ñu ko téye ci ay ponkal xamu nu mu ak doole boobu mu doon wane puissance bi rab am loo ñu ci mën a leeral. alhamdulilah moo lay woon ni euh, ñu doon wax ndax rab am na amul parfois ñenn ñi dañuy gis am ay ñoo xamante ne def vidéo xëy na du ñàkk video ñi di def ay vidéo yoo xamante def pour ndax nit ñi mais ko gis xam carrément dëgg rab lu am la te rab bi rab am puissant la. te rab bu soxor la te moom ndeysaan xale bu ndaw la gis nga jëm ñu mu tool noonu ak ñaata personne ñoo ko téye ak coono bu ñu ciy daj mais lépp ci sant yàlla rek te aussi tamit di wane ni carrément puissance alquran alquran cheytaan ñemewu ko te aussi di dëggal tamit baat bi nga xamante yàlla moom la waxoon mooy alquran buñ ko sàmmee rek te dëggu ci rek incha allah bépp aajo bu ñu yor ci kàttanam incha allah dinañ ko fajal incha allah. نرضيه وإما أن نكون أول من نرضيه قال بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى من سحرهم أنها تسعى من سحرهم أنها تسعى من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى خيفة موسى خيفة موسى خيفة موسى قلنا لا تخفنك مثل الأعلى والقي ما في يمينك That's a fucking son of a est ce que kon jotul ñu delluwaat ci alxuraan ndax ku ne gis na ni euh, fajum rab mi ni mu bëree ci ci réew mi ak ku nekk na nga koy defee waaye tey euh, kii doole bi mu am ba ponkali mënuñ koo téye te alxuraan tey mu ëpp doole ba faj na ko est ce que jotul ko ñu delluwaat ci alxuraan. ah déglu dellu alxuraan moom mooy li nga xamante ni moom mooy lu jiitu te aussi moom mooy lu mujj te alxuraan mooy loo xamante ni dafa naturel. parce que gis naa ñu bëri léeg-léeg dañ naan carrément surtout ñi nga xamante ni mooy féticheurs yi wala yeneen njabarkat yi dañ carrément alquran dafa yéex <laughs> ma ne ñooñu ko ñu ko wax mooy ñu xamul ki nga xamante moom gis nga même pas une minute yaakaar wala mu réagiré noonu gis nga sonn nañ ci d' accord mais alhamdulilah lii nekk ci moom tuubal nañ ko ba gis nga waa ji ba léegi mu ngi tëdd nelaw jugagul mu lay woon ne carrément kon bu yéegee bu yeewoo te ji benn taw feex bu baax a baax la yëg te aussi tamit rab nekk ci moom dafa soxor mais moom ci histoire bu ñu toogee di ko defal consultation dañ ko booleeg rab bi benn daam la doon liggéey côté frontière u Mauritanie boo xamante ci affaire mbay yooyu mais femme bi yoreel dem na ba yoreel ko xaalis yu bëri parce que parfois ñenn yi dañ koy def lu mel ni comme màngaani ji nekk ak nit ki diiran wu été bi di di ko bàyyal ay soble wala ay ceeb wala genre noonu leen nit ki naan garder dem sama xaalis leen da ciy jël envoyé ci ay parents les femmes bi dem ba yoreel ko xaalis yu bëri léegi femme bi koo kidnappé liggéey ko dëj ko. ay mbokkam di ko wër fu nekk mu nuñ koo gis mais alhamdulilah ba yàlla defal ko taw feex moom aussi tamit mbokkam tamit tooguñ ba mbokkam yi jógee tamit après ci la yàlla def sutura incha allah mu feeñ ñu gis ko mu nekk ci melokaan boo xam melokaan bu doy waar après ci lañ ko indi fii ñu commencé ko defal traitement mais am na vidéo yoo xamante sax jotoon nañ ko def ak moom di ko laaj interview yoo xamante ni wax na ci lu gudd lu yaatu ba ci femme bi da ko doon jéem a sàkku di ko a addunaam ak yu bëri mais alhamdulilah ñoo ngi ci traitement bi te am nañ yaakaar incha allah rabi yàlla dinañ ci taxaw ba lépp loo xamante lu nekkoon ci yaramam ba mu tàkkali ko moom parce que premier jour bu mu fi ñëwee la gënoon sonn parce que même bëñi mënu ko woon yaram yëpp mel noonu lu dee comme lu paralysé mais tey ji gis nga moom moo indi boppam léegi kenn du ko indi te rendez-vous am yi jiitu yi deux rendez-vous yëpp parce que sœur moo ko indi mais sœur bi dellu na léegi moom mooy indi boppam kon alhamdulilah la ñuy wax daal incha allah. lan ngay leeral ci ci rab euh, façon bi muy nekkee nit ndax koo xam ne moo ànd ak sagoom ñëwal boppam ba egg si nga moccal ko mu génne rab bi nii nii nii nii ñëpp di teg seen bët te wax nga ko mel ne rab bi du du du jullit ndax bi nga ko duubalee tuub na. mën naa ne kon du jullit du woon jullit waaw rabbi du woon jullit moo tax bu ñuy jàngi alquran moo tax muy manifesto parce que alquran boo koy jàng ñoom affaire da leen lakk moo tax nit ki day yuuxu di am nu muy manifesté yooyu dootu nekk rek sagoom gis nga te lii nekk ci moom daf mel ni <laughs> comme gaynde macha allah mais alhamdulilah bu ñu ko toppee di mocc ci la yàlla def sutura incha allah ñu tuubal ko mu tuub te tuub bi nag duñ ko gëm à 100 pour cent dañuy topp ba ñu xam ni carrément leer na parce que léeg-léeg jinne mën na sonn mu ne tuub na fekk tuub bi dëggul mais moo tax dañuy topp nit ki par science di ko xool di vérifier ba gis ni yaramam am na tawfeex bu baax baax incha allah te roquette charia moom ku ko sàmm te nga nekk ci rek incha allah fépp foo ci mënta dem tamit résultat bi baax rek nga ciy gis incha allah. liggéey bi métti na gis nañ coono bi ci nekk ban conséquence nga ci si biir ndax ñun moom mën naa ne dañ xool lañ ci am. duñ xam dëgg-dëgg baatin bi mais yow mi ko def ban ban conséquence moo ci moo ci nekk. waaw liggéey bi benn risque ci nekk parce que xam nga seytaan moom toujours moom du bàyyi te ku dugg ci monde moom toujours day jéem a venger wu ci anam bu ne mais toujours comme ni ñu ko waxee rek liggéey bi lu ci jiit avant tout jaamu yàlla la. te mënoon nañu yàlla mënoon nañoo nattoon ñun ñu doon tey jii ñu feebar ñuy dem di faju ji mais alhamdulilah ba yàlla suturaal la ñun ñoo nekk ci milieu bi tey jii di faj kon toujours dañuy dimbali suñu borom di gën a yeesal toujours suñu góor góorgóorlu ci côté suñu ibaadaat di góor góorgóorlu aussi tamit ci côté laab di gën tamit di gestu di jéem a xam carrément seen pexe toujours di ci jéem a taxaw bu baax a baax baax incha allah di jàppalanteeg jaam yi ba yàlla dañu ci defal tawfeex liggéey métti na moom bu baax a baax ku ne méttiwul moom day fekk da nga nekk ci milieu mais ku ko gis tamit di nga xam ne carrément lii dafa bëri ci yoon mais lépp sant yàlla parce que liggéey léeg am na nu muy méttee tamit toujours da nga ciy nekk ba benn instant da ni ku ko xaw a tàmm daal sa yaram day dem ba tàmm ko mais bëri na coono trop macha allah. mu mel ne euh, centre Afia li ñuy li ñuy li ñuy liggéey bari na euh, du ci wàllu faj rab mais ndax ñu gëstoo gis nañ équipe bi beneen équipe bi ñu ngi ci Wantus bi Wantus moom itam nekk loo xam ne am njëriñ la man xam naa ci dara euh, loo ñuy waxal ci ci Wantus. waaw xijaama mooy Wantus bi comme ni nga ko waxee rek olof Ndiaye dinaa ko nampatal comme lii faj la boobu faj bi yàgg la. te faj la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi ci bu muy rañaani ji ñetti yoon malaaka yi dinaa est-ce que yaa xeet. moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax xayru maa tadaawatu bil xijaama ci benn xadisam wax nañ ay xadis yu bëri mais faj la boo xam ne lépp lu bon lu nekk ci yaram nit ki moom tooke la moom ngelaw la moo xam yenn feebar da koy dindi ba mu set wecc incha allah te xam naa ci yeneen vidéo nañ ci gën a leeral lan ak lan moo njëriñ ventouse ak ventouse yan feebar lay faj parce que feebar yi faj dafa bëri trop te boo koy def moom ci saa si boo paree da ngay gis taw feex bu baax baax parce que amul trication amul dara incha allah te alaafee moom dafa yaatu ci comme ni nga ko waxee ci domaine boobu moo am na ñoo xamante ni su mocc dañ may jàppale am ñoo xamante aussi tamit ñoo nekk ci xijaama bi man aussi maa nekk ci bureau bi di consulter en même temps di joxe garab yi incha allah te ñaan yàlla aussi mu gën a yaatu bañ ci gën a programme ay programme yu bëri incha allah gis ngeen ñun euh, ci lu ñuy xeex mooy lépp lu xeetoo shirk incha allah mooy gàllaaj yi nga xamante parfois nit ki dañ ko koy jox ñu takk ak genre mel moo xam yu ñu takk ci ndigg la moo xam yu ñu def ci bopp la moo xam yu ñu takkal nit ki ci biir kër gi la ak genre mel noonu wala samp yi ñun lépp lu ci mënut na am bi idnillah ñu dañ koy dindi parce que ñun bu ñu fàcc nit da ngay wakkilu ci borom bi subhanahu taala kese ñu faj la ci alquran ak sunna incha allah ba nga xamante ni lépp lu bon loo xam ne loo looloon yëg ci kàttan yàlla incha allah day dañ gis di yëpp ay téere la ak ay xaatim ak ay gàllaaj ak ay fas ñoo xamante ni ñu doon jàmbat ay ndigg luy metti tànk yu metti alhamdulilah ñoom ñëpp ba bi ñu fi ñëwee yàlla def na sutura incha allah ba ñu tàkk tàkkali ko moom incha allah kon mbokk yi gis ngeen lii mooy médecine traditionnelle et prophétique ñu gën koo xam ci ruqyatu charia ku ko def incha allah tawfeex nga ci gis comme ni ko waxee xam naa dinañ gën a programme beneen émission boo xam ne dinañ ci mën a leeral comme yëpp li nga wax yëpp ndax suñu ginnaaw mën nañ ne garab yi yëpp ñu ngi fii ñuy teg bu ci nekk ak li muy dox ak li faj waaye comme liñ naan lii duuf ci nag bi xaju ci cin li dañ koy tënk foofu benn ñoon dañu jox la nga tàggoo euh, mbokk askan wi loolu leen di waaw di ñaan allah subhanahu wa taala bi nga xamante ni moom mooy borom wér yàlla defal ñu wér defal ñu tawfeex def ci réew mi jàmm dafa ko bépp mbo réew jullit incha allah di ñaan allah subhanahu wa taala defal leen tawfeex seen chaîne bi aussi tamit yàlla def ko télévision bu mag incha allah yàlla barke la leen taxaw ñu suturaal leen incha allah suturaal mboolu jullit incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah